Momar wax daanaka lu ñu ciy dolle mu ci loo wax ci moom lu baax rek xamal ne am na lu ca des euh, li mu wax it ne buggul di dokk ci émission hommage parce que ñaare dafa bari nit ñi di ko def te sax xëy na du nekk ci ñoom loolu bokk na ci may itam li ma fi indi parce que wax ci Alioune moom jàpp naa ne ab njàngat la war doon ci képp koo xam ne dëkk nit nga parce que baax moom ah xamee na fu baaxam tàmbalee waaye fu mu yem moom jafe na. xam baaxam léppit nag yombut. Euh, kon ñu ñaanal ko fa mu jëm alaxira gënal ko fi mu jógee yàlla xare ko àjjana di ko jaale ay doomam ak soxnaam ne di ko jaal président de la république di ko jaal suñ Muntaxa ak njabootu suñ Abdou Khadir yëpp ah di ko jaal waa Sénégal parce que nag waa Sénégal ñoo ñoo perte ndax euh, c'est un cadre de très haut niveau Aliou bi mu waree jàng daa jàng bi mu waree yaru mu yaru yar yëpp daf ko boole. di taalu bi murit bu wér. dama daan ne Alioune Badara Cissé booy wax ak moom booy wax Sëñ Tuubaa rek da ngay jàpp da ngay wax ne bëgg na Sëñ Tuubaa wóolu na Sëñ Tuubaa euh, loolu moom lu ma wér la ndax avant ñu tabaski yenn këram laay yendu fii ci Ndakaaru ci la ma waxoon ne day Tuubaa lay tabaski ji gis nga Mamar mbirum suñu borom lu doy waar la Aliou dafa dafa yàkkamti woon mandat bi jeex rek ba mu <laughs> kër ga defar na ko xam naa la ci des ay finition yu ndaw la yàkkamti dellu Touba la defoon loolu tax même ren tëbaskiwul Ndakaaru Touba la tëbaski ji waaye gis nga mbirum suñu borom xëy na la mu bëggoon la ko yàlla defal tey am te kon ñun bu buñ sañoon wax dëgg yàlla mu des feek ñun waaye nag bu yàlla bëggee moom ñëppay ñàkk kenn ñëpp ñàkk ndax yàlla moo ko fi indi woon moo nu xamal moom ah, dem na ah maa ngi sa ñaan yàlla mu féete njabootam gi fa mu leen féete woon mm. parce que c'est pas évident c'est pas évident ndax ay njaboot xale la bàyyi soxnaam ne ni jàmbaar la trop tey li ko li ko dal ci diggante bu gàtt metti na trop. sa doom faatu ñu suul ko bàmmeel bi woowagul sa jëkkër topp ci. lu métti la waaye nag yàlla nit lu métti moom lay teg nit. ñu dafa tël ko rek ñaanal ñaan yàlla mu jàpp mu jàppale ko na na na bësal ko xolam. ba situation bii mu mën koo dépasser avec. beaucoup de sérénité. jërëjëf jërëjëf moom Momar damaa bëggoon balaa ma laa jox kàddu gi ma jox euh, président Moustapha Diakhaté parce que euh, boo xoolee mook Alioune Badara Cissé am na fu bari jaar nañ fa. Mm-hmm. fu bari bari xëy na waxaale régie rek bu fekkee ne aussi mën nañu làmbal Moussa Ousmane Diagne pour fële ca Ndar. mu wax ñu un peu quand situation bi naka la ko waa doomu ndar accueillir ak information oo xam ne jot na ko ci am après moment boobu saa yi dikkee rek mu xaar le temps que président di àggali mais président man dafa am benn laaj bi ma la bëggoon a laaj hmm. euh, Alioune Badara Cissé même président de la République ci tweet bu mu def mu ngi koy wax c'est un homme engagé un homme de conviction et je crois que quand même les mots ont leur sens yow mi ànd ak moom c'était un homme de lan nga ñu mën a wax sur cet homme waaw xam nga Aliou man maa ngi ko xam 1991 90 91 mu jàngi France ba dellu si barde de diplôme nag ba mu ñëwee ba muy tànn ab Ablaye Wade la tànn c'était pas évident. absolument tànn Ablaye Wade ci jamono jooju quelqu'un qui est barde de diplôme boobu jàpp naa ne woon ñi fi nekkoon comme na ci woon bonjour rek nga dalal ko waaye daf ko fa bàyyi ñëw ànd ak Ablaye Wade loolu déjà rek day wane ne kii. conviction la àndal man maa ngi ko gën a miin dafa am benn séminaire bu ñu mës def fii ci Boori euh, Sali pendant une semaine président Abdoulaye Wade ànd ak étudiant ak quelques cadres du parti mu ñëwoon ca man ca laa ko xamee ci laa xamee njàng mi éloquence bi ak dëggu gi kon encore une fois euh, euh, li ma xam mooy du ma ko wax parce que c'est pas lu ñuy lu ñuy galbauder la le Sénégal a perdu un grand homme c'est je le regrette et je le Sénégal n'a pas suffisamment utilisé Alioune Badara Cissé hmm. li mu xam ak li mu jàng ak yéen jim amoon ci réew mi joxu ko réew mi waaye conviction moom foog ko natt weesu na ko loolu mooy benn bi. 2007 hmm. euh, bi président Macky Sall commencé am problème. Hmm. booba tànn Macky Sall ci Alioune Badara Cissé lu jafe la d'abord parce que Abdoulaye Wade baayam la. absolument defu ko woon secrétaire général de parti bàyyi la ko jàppe benn booba ab Ablaye moo yor réew mi yor teraanga yi mu bari lool tax tam ñeme koo joxe bi nga xamee ne dal nañ ci Aliou ba kii am Macky Sall bi nga xam ne dem na ba muy dem Alioune Badara Cissé dafa ànd ak moom. te il était mais bien sûr il pouvait rester bu ko neexoon sax nekk ministre plein. mais dafa daf ko fa bàyyi dafa ànd lépp ànd ak moom mais mieux. bi mag Sall ñëwee assemblée nationale il ne voulait même pas être un directeur de cabinet ko bàyyi ñeneen doon ko. parce que ça ne l'intéressait pas pour wu dire que euh, nit ku am gëm-gëm la euh, boppam nekkul yi te Aliou mën ngaa wax ak moom ba mu jeex doo ci gis boppam suy wax ak moom daal li nga ci mën a xam mooy xam ne ku bëgg réew mi la ak ku bëgg Sëriñ Tuubaa loolu moom mën ko cee xam waaye boppam moom ça ne l'intéressait pas. Mm-hmm. parce que nag euh, bi mu ñëwee euh, jàngee ba ñibbi si ànd ak PDS ba 2000 wax dëgg yàlla c'était pas évident mieux même bi Ablaye Wade falo bokku ci ñi nga xam dañu doon rabax rabax yi toog ci xefam pour mu jol jox leen ay ndomba tànk bi nga xamee dem na ba Macky Sall mi ko defoon conseil spécial tàggoog pour Ablaye Wade aussi taxul mu toog fa dafa ànd ak moom dem. Mhm. te nag ba muy dem c'était pas évident parce que xale la yorum njaboot bëggoon teraanga ni ko ñëpp bëggee waaye nag euh, maanaam muñ na teraanga yooyu ngir garder. confiance bi nga xam ne moo dox digganteem ak président Macky Sall. su may mujjee ci tontu yi dama benn anecdote moo leen di gis nga keroog bi ñuy formé. waaw APR. cest à post bi njëkk am ci APR mag euh, Alioune Badara moo ko njëkk a takk a Macky Sall. parce que Alioune Badara moo nekkoon le coordonnateur du directoire. Mm-hmm. booba Macky Sall amul benn ndomba ci parti bi. man booba maa ngi PDS maa ngi ci cabinet Abdoulaye Wade waaye fa la ma fekk. bi nga xamee ne dem nañ ba ba yëpp jeex ba nit ñi ñibbi dama dama ko jël moom Aliou moom ak président Macky Sall ak Marème ñun ñeent ñu taxaw yàlla juróomeel nu ma tey loxo Marème ma ne ko Marème dama laa bëgg dénk Alioune Badara Cissé ak Macky dama bëgg seen diggante nga téye ko ba bu dara bañ cee yàqu xool ma Marème ne ko yow itam lay dénk Macky Sall mu ne ma mu ree ne ma loo dénk Macky Sall ma ne ko da ngaa nga am léegi nga am wujj ndax lee mu créé parti te bu créé parti sa xar kanam ci kër gi dana tax nit ñi sawar fee dugg nit ñi sawar fee toog seen boobu duma ko fàtte mukk c'est pourquoi difficulté yu Alioune Badara am ci politique dafa may metti parce que man xam naa fi mu xolam fi ci Macky sal toll c'est-à-dire que lu ci nit wax rek am na lu ci des parce que man xam naa bu dee mbëgg ak ay yërëm ni mu ko defee Macky gëw ma ne sax ay waajuram def nañ ko ko noonu encore une fois c'est un grand homme qui est parti. et mos nañoo toog di waxtaan juste pour dëggal li ngay wax mu ne ma jeune frère ndax loolu la ma doon woowee. mu ne ma gis nga ba may ànd ak le président Macky Sall mu ne jamono jooju même boo masaan dem di ko seeti këram. quand les mouches volaient tu pouvais les entendre. parce que ñëpp ko dawoon parce que tellement avec la puissance de Abdoulaye Wade.